وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentam bi alayhi salaatu wassalaam kon ñu ngi ci ba tey ci tafsirul Qur'an yi nga xam ne dañ ko samp ci weeru koor bi ci weeru koor gi ci ñu nekkoon ci suratul ma'arij ba fi ñu nekkoon mooy walladhina hum a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina hum 'ala salatihim yuhafizun muy ñi nga xam ne ñoo jegeñ boro buur yàlla subhanahu wa ta'ala ñooñu jey mooy ñi nga xam ne walladhina hum mooy ñi nga xam ne ñoom ci seen melo wuñ leen mujjee melale mooy ne ñoom ala salaatihim seeni julli ñoom yu xaafizuuna dañuy sàmmonteeg moom dañ koy wattu te dañ ciy taxaw di taxaw ci charte di taxaw ci melo yi di taxaw ci keno yi di sàmmonteeg farata yi ak sunna yi ak ngëneel yi ñooñu nga xam ne seen julli ci noonu lañ koy defee liñ jotoon a gis gis nañ li aju ci yii yi walillahi alhamdu wal minna ba gis nañ sax li yàqu julli lépp ci tënk waaye nag ci suñu jotaay yii weesu maanaam ñaari jotaay yii weesu dañoo tàmbali woon ci di wax maanaam mbóot yi nekk ci biir julli maanaam julli dafa am wàll bi nga xamante ne moom mooy wàllu li feeñ mooy zahir bi mooy yi nga xamante ne loolu ci côté fiqh lañ koy toppatoowee mu am nag wàllu baatin bi wàllu baatin bi nag dafa am ñaari mbir yu ci aju benn mbir bi mooy li aju ci wàllu sóobu wi maanaam nit ki ni mu ciy sóobu ci biir julli beneen wàll gi mu aju ci wàllu xaqaayiq yi mooy ay mbóot ak ay dëgg yu ko jug borom bi yoo xam ne buur yàlla daf ko ci dëxëñ ci biir julli ñu waxoon ba allahu akbar bi nga xam ne moom la ñuy kàbbare xarmal gi ay solom ak i maanaaw nga xamante ne soo ko defee yaa ngi armal yu baree bari comme ci at niñ lay tere yu bari ndax daga armal ba noppi fii tamit noonu la boo xësee ba kabar yu bari da lay xaram da armal yoo xamante ne daganoon na pourtant ci yeneeni mbir mooy lekk geeg naan waxtaan ak yeneen yu bari di dox di dem di yëngatu yenn yëngatu yi yëpp pourtant daganoon na waaye léegi day xaram ndax da nga armal nga tari ñu gis duwaaw istiftaax bi ak li ci aju ci suñu jotaay bi weesu gis nañ ko ñu gisoon maanaam tari suratul fatiha bi ak ay solom ci suñ jotaay bi weesu waaye comme que taxawaay boobu nga xamante ne moom la taxaw di ñu tari sar maanaam ginnaaw fatiha bi ak amin bi wax nañ ci solo yi ci suñ jotaay bi weesu léegi nag mu des tari sar ndax ne euh, comme que fatiha bi mooy alquran bu mag bi waaye alquran bu mag bi dafa nekk alquran ba pare nekk alfurqaan maanaam dafa am le fait mu nekk alquran moom mooy dafa dajale lépp le tout en un mooy alquran mooy Coran kon soo may jàng alquran bi tàmbalee ko d'abord ci fatiha bi damay dajale léegi nag fa naaxu iza qara'nahu fattabi' a mooy su ñu koy dajale noonu yow toppal ni mu dajaloo weer noonu rek ngay ngay ngay jàng voilà après summa inna alayna bayana borom subhanahu wa ta'ala dina la leeralal maanaa yi ak li ci biir li ci ko loolu yëpp borom bi dina la ko dajaleel ginnaaw gi wala bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilman gis nga aaya boobu mooy cent quatorzième aaya ci saar bi mu nekk dinañ ci ñëwaat ci maanaaw cent quatorze boobu quinze quatorze saar voilà nga xam ne mooy réalité wu taaxa bi yenent bi sallallahu alayhi dajale gi mu dajale mboolem réalité yi nekk ci adduna bi ak secret yi ci nekk ak mboolem réalité yi nga xamante ne dañoo laqatu borom bi wéetoo ko subhaanahu ak maanaam mu nekk ci lu nëbbu dans le mystère total muy taaxaa boobu léegi nag nan la incarné woo ci xaaf nga xam ne mooy xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam taaxaa quatorze la xaaf cent la muy cent quatorze alquran bi noonu la ni ngay jàngee alquran euh, borom bi ne bul yàkkamti alquran bi niñ koy dajalee noonu laata wax yu bi yëpp révélation bi yëpp di daje di di mat yow waxal rek na yow buur yow yow sama borom mi méngoo samay mbir dolli ma xam-xam maanaam yow moment bi ngay jàng alquran moo tax ñun wax ci jotaay bi weesu ne jarul ngay toog di sa xel di dem ci a aaya bi di tafsir bi wax na ne maanaa bi lii la beneen tafsir bi nee na maanaa bi lee ki kii kóotaayoog yéen maanaa def nañ ci déggee lii da ci déggee la déedéet jamono jooju du jamono ju ñuy duggee suñu xel ak suñu xalaat yi di sóobu di dugg ci biir tafsir yi du jamono jooju jamono jooju jamonoy di ak borom bi la subhanahu wa ta'ala wu di recevoir di dajale wax yu boobu lépp muy ñëw maanaam ci ci ci ci ci jamono ci ni mu gën a mate maanaam muy ñëw di tegaloo ngay dajale soo pare ba leer yi nga xam ne moom moo nekkoon ci maanaa yooyu yëpp nga xamante ne moom nga amagasiné woon moom nga dajale woon dugal ko léegi nag leer yooyu dañuy commencer di di dissocier wu di di di di firé ko benn bu ci nekk di wane boppam maa ngi nii man may kii man may xam-xam bi lii laay tekki man maay lii lii laay tekki man maay di nga gis nag ñu commencer di génnee ci xol yi di jaar ci xel mi dégg nga nag nga gis nag muy commencer xam-xam yu bari di commencer leer ci yow loolu mooy wàllu furqaan bi. voilà muy wàllu furqaan bi nga gis moo tax borom bi subhaanahu wa ta'aala ne faqra'u min al-qur'aan jàng leen di jàppandi ci al-qur'aan waxul min al-furqaani waxul min al-kitaabi waxul min al-qur'aani ci al-qur'aan bi ndax mooy le fait que mu dajale mboolem xam-xam yi le tout en nekk comme fichier bu ñu compressé bu ñu zippé yow noonu nga koy considérer jàpp rek ne kàddu borom subhaanahu wa ta'ala lay tari te li muy wax nii maa ngi koy maanaam maanaa yi gën a jege aayul nga teewlu ko mais teewlul ne borom subhaanahu wa ta'ala moom mooy feeñal alquraanam gi wala yenn aaya ci alquraanam bi ginnaaw ba mu feeñalee alquraan bu mag bi ci yow ba pare mooy ci ak faatixa bi xaal boobu nag nga taxawee xaalu alif boobu ngir taxawaay gi mu taxawaay alif moo représenté comme niñ ko gisee mooy xaraf bi taxaw taxawaayu zaatul aliya mooy nekk-nekk bu kawe gi mooy borom subhaanahu wa ta'ala l'essence sanctifiée moy alif mu dëppook alif boobu te noonu la ruuxam moom borom subhaanahu wa ta'ala noonu la ko taxawalee samp ko te ruuxam boobu mooy ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom la reflété ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam nag moom mi ak ruux nga xam mooy ruux bu kawe googu moom nag dafa yor maanaam forme bi mu yor ni moom la jox maam Adama alayhi salaam moom moom la ñu maam Adama jox moom muy suñu baay euh, kon boo fekkente ne nag yaa ngi jullee noonu maanaam taxawaay boobu kon alif boobu maanaam moment boobu yaa ngi dugg ci géeji leeri muy al ulfa wal unsa al ulfatu mooy miinante gi nga miinanteeg yàlla ndax foofu boroom subhaanahu watala taala daf laa jël boole la ci boppam dalaa dëppale ak boppam mooy ulfa d'ailleurs al alifa alifa loolu lay tekki allafa bayna qulubi mooy dafa dëppale seen xol yi mooy kon borom subhanahu wa dafa dëppale loolu alifa mooy tàmm na dara mooy miin na dara nekk na ci loolu moom mbir moomu ak moom dañoo dañoo daa mbir mi daa bokk ci moom mooy alifa euh, kon borom subhanahu ci xaal boobu nga nekk. daf la dëppale ak boppam mu lay nettali yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu dëppoo woon ak borom subhaanahu wa mooy alif boobu taxawaay boobu waaye al unsatu muy miinil muy eh, familiarité al unsatu xam ngeen ni eh, ab julit bu gëm yàlla te ragal yàlla dafa am ñaari jikko yoo xamante ne muy ñaari laaf wala ñaari tànk yoo xam ne moom lay avancer moom lay demee ci kanam moom lay naawee di dem muy alxawfu war raja muy ragal ak yaakaar ragal gi ngay ragal yàlla ak mbugalam ak meram ak yaakaar gi ngay yaakaar borom bi subhaanahu wa taala ay xéewalam ak njéggalam ak yërmandeem ak ngërëmam ci diggante ñaar ci ngay ne bu ko defee waaye boo demee ba yenn maqaama yi yen aarif billahi ñoom dootuñu waxati xawfu ak raja donte dañ koy yóbbaale mais dañuy am leneen loo xamante ne moom mooy gën a dominant ci ñoom mu lu ñu tuddee al qabdu ak al bast looloy dominant ci aarif billah moo tax bu niveau aarif billah soo seetloo qabdu ak bastu lañuy faral di utiliser mooy ngëb ak tàllal maanaam mooy lan contraction dilatation c'est-à-dire le fait que nit ñi maanaam ngay toog yaa ngi jaamu yàlla yaa ngi ci li neex yàlla li neexul yàlla moom ya xalaatoo ko xalaatoo cee jëm waaye yaa ngi ci li neex yàlla yaa ngi gën di xëñtu ngir gën a xam yàlla waaye day am ay yëg-yëg yoo xamante ne euh, mooy yëg-yëgu ne cawarte gi ma ci daan am wala mbigte gi ma ci daan am ëfuur yi bi ma daan àndal ni mbir mi daal nekke leer gu nekk sama dënn di ak di di tas sama jëmm ji yëpp ma koy yëg dafa mel ni borom santal da ko ngëp léeg-léeg sax nga dem ba ci nekk ci de mauvaise humeur ak yi ngay bëgg muy xew xewut demewut noonu mooy xaalu xabdu bi mu am beneen xaal mooy bastu bi mooy contraire bi lépp ngi leer yaa ngi booy sikkar ngay yëg affaire di yëg sa bopp ci affaire yi di nekk dan le four yi mel ni voilà yaa ngi ci leneen yaa ngi ci beneen moom nekk ci sa ay xaal am yëg-yëg googu voilà leer gi jolli waaye tamit mbir yi ni nga koy bëggee muy demee noonu nekkoo ci benn xat-xat nekkoo benn coono voilà adduna bi lépp ni naan lépp di la sourire lépp di rek voilà mbir yi dox mooy mooy bastu bi kon xabdu bi ak bastu bi aarif billaahi nag xaalu bast bastu bi lañ gën a ragal ka xaalu xabdu bi ndax xaalu xabdu bi day wane seenu doyadi seenu ñàkkatee ki dara seenu ñak man da len di wat ci seen xal ñom ñoy kan ñom ay Jam, lañ quoi te jam fi mu deug deug deug deug nit ki en fait moment biñ nee la xamoo dara mëno dara wala yow nga yëg ni xamoo dara mëno dara li de teung fof nak ngay sante yalla deug parce que da nga nan ah sama sama manam sama sama sama identité nak léegi mo feñ manam man may kan quoi mo feñ ndax man xawma ma dara voilà ndekete mënuma dara ndekete sañuma dara ndekete awma dara wa voilà sama identité feñ na nak léegi voilà moo tax kooku bu ñu bëri dañoo yaakaar ne moo tax aarif bi soo ko xasee ne ko xamoo dara yow ci tekki woo dara da day foog ne day mer non day gis ni effectivement yow wax nga ko ne ko yow lii mooy sa identité moom loolu mooy identité day sant yàlla parce que euh, boo boo nekk bu buñ ko commencé jàpp ne dafa xam dafa mel ni dafa mel naa dafa man dafa sañ dafa am dafa lii rek loolu moom mooy loolu moom yëfi yàlla la. loolu du yëfu nit de yow yëfu yàlla la waaw loolu moom yëfu yàlla la quoi waaw dégg nag euh, euh, euh, donc moo tax ñoom xaalu xabdu bi lañ gën a bëgg ka xaalu bastu bi maanaam moom parce que ba pare du leen jay du am dara lu leen di jay ci xaalu xabdu bi alors que xaalu bastu bi mën na nekk ay ay istidrajaat ay xeetu jay yoo xamante ne lépp après ginnaaw gi mujj gi du rafet daal kon euh, loolu moom mooy mooy euh, kii bi moom mooy euh, kon xaal boobu léegi nag bu ñu demee ba ci kaw nag dañuy am lu ñuy tuddee satu ak xaybatu maanaam xaybatu moom mooy téy téyu gi mooy le charisme saa à dire que seen diggante seen borom léegi doxatul ci diggante qabd ak bastu kese déedéet même bu dee dañuy yóbbaale maqaama boobu doxatul ci loolu ci diggante xaybatu ak umsa mooy bët mooy tëyu mooy charisme bi ñuy bi yàllay am seen kanam gëdd gi ñu koy jox vraiment xorma bu mag biñ ko jox ñoom loolu mooy moom la ñuy bàyyi xel ak unsa bi unsa moom mooy wéttaliku gi maanaam familiarité bi ñuy am ak yàlla ci diggante ñaar yooyu la ñuy daw mais weesu nañu fu ñu nekkee ci xaw foog raja xab dob bastu yooyu noonu déedéet léegi ñu ngi ci xaybatu unsi te gis nga niveau boobu moo tax xayba ci xaa alif alif ak xaa ñoom ñooy ñaari xaraf yi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi parce que alif mooy cosaanu xaraf yi xaa moom mooy sangu xaraf yi ñoom ci yooyu la ñuy kon alif boobu nga taxawee da ngay taxawaayu familiarité boobu tamit ak borom subhaanahu wa taala muy nettali ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee woon kon ku familier ak borom subhaanahu wa taala muy al ahliyatu bokk bi nga bokk maanaam habilitation bi nga bokk ci nekk ci ahlullahi nekk wa yàlla nekk ahlul qur'an ndax foofu alqur'an lañ fay jàng te yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis sayyidina anas radiyallahu anhu bu nekk sunan ibn majah rahimahullah mu ne ala inna lillahi fil ardi ahluuna ala waawee yëgooma yëgal leen ne buur yàlla am na ci kaw suuf ñoo xam ne ñoom ñooy waa këram ñoom famiyam la ñu ne ko ñan la man hum ya rasulallah mu ne ahlul qur'an hum ahlullahi wa xaasatu ñooñu alquran la famille yu alquran les familles du Coran de de l'alquran ñoom ñooy ahlullahi ñooy waa kër yàlla te ñooñu ñooy xaasatuhu ñi yàlla gën a jag jagal moo tax place boobu gis nga nga ci ñu ciy jàng alquran kon géeju ulfatu ahlu gi unsa gi hayba gi di ànd ñoom googu géej ngay ci ngay fii jamono jooju ak respect ak wegeel ak xorma gi ngay nekk boroom subhaanahu wa taala moo tax nga gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne iza ataytumu salata fa'tuha fa la la ta'tuha wa antum tas'una fa'tuha bis sakinati wal waqar boo leen dee dem ci julli hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mi ngi ci saxiix boo leen dee dem ci jul na dem ngeen ànd ak ak wégeel waaye bu leen fa dem fekk yéen na ngi di daw di fër fër di gaaw déedéet motax après bu tekki na wama ma faatakum wa ma adraktum fa sallu wa ma fa lu len euh, ci ben riwaya wa ma faatakum faqdu lepp lo len fekke ngeen julli lu len fat après ngeen fay ngeen wala ngeen mottali benn riwaaya te loolu moom mo war tax tamit nit ki buy julli bala muy julli muy mu mu mu war a ci disposition bi manam moy lan Euh, mooy mu xam ne ci julli la jëm mu am moment bu ndaw bu mu teewlu borom subhaanahu wa ta'aala muy tàmbalee julli moo tax mu am borom xam yoo xam ne ñaanu sayyidina Ali bi karamallahu wajhahu muy wajjahtu wajhi lilladhi fatara as a wal arda haniifan wa maa ana minal mushrikiin inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiina laa shariika lahu wa bidhaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin ñoom au lieu ñu def ko du'a istiftah bi du'a istiftah bi bu sayyidina Abu Hurairah bi radiyallahu anhu jang mais ñaan bobu ñun dañ koy jang avant avant digënté li xam bi ak jullu bi nga xamné légui dañuy wax ni jébal nañ seen lepp yalla ñi ngi déllu ci yalla wala manay gisoon nañ suñu jotaay bi wess nga gis kon euh, mais su fekkente da nga ñëw kaf ree ngeen waxatay xaqataay reetaan ki rek ay gaay kon ni julli rek eh, allahu akbar bo moytu li nga nekkon ci di waxtan di xaqataay di reetaan sujet yi ngeen nekkoon noonu ngay gis ci ngay julli moo tax ngay gis boo xoolee xaal boobu nit ki suy julli bu kàbbare même bu nekkee ci biir julli bi sax xel mi day dem ci li mu jóge léegi te mu reetaanlu voilà bu deful attention rek day ree euh, te lool noonu la demee nag ci leneen lu mën a doon euh, kon nit ki léegi nag mu des mu waxaat allahu akbar daal di rukkoo bu rukkooee forme bi nga xam ne moom lay yor mooy formu xa xaraf xaa bi nii la amul tomb maanaam position julli amul benn xaraf bu ci tomb xaa xaa muy dugg ci géeju leeri alhamdu wal ndax xam ngeen ni euh, xaa boo ko pastoo noonu xaa moo la jox xubb ndax alif bi ak hamza lépp un la xubb mooy mbëggeel nga nekk ci géeju mbëggeel te mbëggeel mooy cosaanu lépp boroom subhaanahu wa ta'aala mbëggeel moo tax mu bind adduna bi moo tax mu bind yenente bi sallallahu alayhi moo tax maqaama yenente bi sallallahu alayhi moom mooy xabibullahi mooy soppe yàlla bu mag mooy ki yàlla bëgg dëgg dëgg mbëggeelam yépp ci moom la ko def sallallahu alayhi wasallam euh, géeju mahabba googu al xubb mbëggeel tamit géeju xamdu ndax xamdu mooy cosaan cosaanu lépp mooy cant d'ailleurs cant ga boroom subhaanahu wa ta'aala cantoon boppam ci asal ci zaatam nekk-nekkam ci biir nekk-nekkam jaare ko ci nekk-nekkam ci anam nekk-nekkam ak yéen maanaam euh, loolu xamdu googu cant googu moom mooy cosaanu mbooleem tur yàlla yi ak melo yi ba ci bismillahil tur yàlla bi dina cant googu la cant googu nag boroom subhaanahu wa santoon boppam maanaam géeju sant googu nag ci xaa boobu ci nga ciy duggee ak mbëggeel googu moo tax nga gis moo tax rukkoo foofu la rakkaa di façon gis nga parce que baatu rakkaa ci boppam mooy jëmmi rukkoo moo tax foofu lay façon ndax foofu la lépp cosaan mooy mbëggeel bu fekkente ne alif bi day junj ahadiyatu zaati nekk ne kenn càppaatolik borom subhaanahu wa kenn kooku nga taxaw nga taxawee ko xaa dafay junj alhamdu ak alxubbu muy mbëggeel gi ak cant gi nga nekk nag léegi fii ci gii ji cant borom subhaanahu wa ak bëgg gi ko bëgg te ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci cant gi ak mbëggeel gi ñooñooy nitu yàlla yi ahlul mahabbati ahlullahi yallah ñi nga xam ne ñooy nitu mbëggeel ñooñu la ahlul shukri ñoom ñooy boroomu cant ak ngërëm si lépp loolu la ci yàlla géej googu nga gis subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mi sant mi ngi maa ngi sabbal di fey di dugg ci giij leeri tur yàlla yeeg melo yi di seede ni boroom subhaanahu wa dafa setti mboolem wàññeeku ak loola lépp lum mën a doon ba ci mboole mat yi nga xam ne ci mbindeef fi la nekkee mat sax borom subhaanahu wa ta'aala deñ na ci loolu moom mi nga xam ne mooy sama borom bi méngoo mbir moom mi nga xam ne mooy al azim mooy ku màgg ki nga xamante ne mooy ku rëy ki subhaanahu wa ta'aala moom te it maa ngi koy def di sabal géej ci loolu waaye tamit ci di wëlbati ko di ko cant moom sant googu nga xamante ne day dellu ci nekk nekk cosaan gi te cant googu mooy sant gi nga xamante ne moom la santan boppam ba dara lu dara te ci loolu tur yu yàlla yu melu yëpp ci la ñu feeñee ci la ñu génnee te cant googu noonu mooy tegtale maanaam moom mooy cosaanu mbir yëpp te cant googu euh, euh, ci maanaam mooy tegtale ak mat goo xamante ne amul xeetu wàññeeku ci am te lii maa ngi koy seede maanaam voilà maa ngi ci loolu maa ngi maa ngi maa ngi duggal ne mbir mi nii la demee ci moo tax yeneen bi sallallahu maanaam boo xoolee foofu ne maanaam ñett yoon lañ ko war a wax ñett yoon ñu gis xaa alif bi hamza bi xaa nga seede ko ñett yoon te ci xadis seydna abu abdullah ibn mas'ud radiyallahu mooy li gën a néew soxna Aisha radhiyallahu anha nak mom haditham bi daf ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci jeexitalu dundam daf don wax subhanaka allahumma rabbana wa bika wa lak alhamdu wala wa bika uh, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli li ngalama borom manam kon nga gis même jëmmi baat yi la ñoo ci seede ci fii ci gii ji leeru borom subhanahu turam yeeg melo ak sant gi waaye daf cee yokk lu am sol yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yeeg melo yi yëkkati kuy jéggal ma mu ne yata awwalul Qur'an lool daf ko def ngir gëndale Alquran interpréter Alquran moo tax njéggal googu ngay sàkku mooy sommité bi xanaa dégguloo yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi nekk sax imam muslim li mu wax innahu yughaanu ala qalbi fa astaghfirullaha sab'ina marra man de sama xol dafa am niir gu ci ne maanaam dafay am brouillard niir gu ci bu ko defee ma jéggalu yàlla ma wax astaghfirullah soixante-dix fois soixante-dix muy kun allah ak ñeenti lettre allah soixante-six ak ñeenti lettre yi kon du par hasard moo tax mu jëfandikoo nombre boobu mais te mooy suñu numéro saar soixante-dix moo tax saar bi loola tax nga gis ni mel ci wàllu yi ni muy tëkkalee yoonu yàlla subhaanaka eh, eh, eh, mais maanaam jéggal ma boobu mu ne mu ne kon baatu lool jéggalu lay def xam nga géeju leer yi la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yi daa iman day gën di moom foo ko fekk day gën xuus ci biir géeji leeru yàlla yi parce que du jeex amul fu mu yem à chaque fois géeji leer yooyu nag dañ koy day dem chaque fois mu dugg ci gën xuus chaque moment nag amul moment bu ci dul xuus géeji leer yi nag feesal xol bi su ko defee jéggalu googu mu jéggalu allahumma xfir lii googu astaghfirullah yooyu mooy canaliser waat leer yi éliminer brouillard muy continuer di dem moo tax borom bi subhaanahu ne ko inna fatahnaa laka fathan mubiinan lu mu ci teg li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dañ laa ubbil ubbil gu rëy lu tax li yaxfira laka allahu ngir yàlla jéggal la ma taqaddama min dhanbika lu jiitu ci say bàkkaar wa ma ta'akhkhara li déglool bi mu ne ko fa'lam annahu laa ilaha illa allah xamal baat bi gën a li ëpp solo mooy laa ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika waaye sàkkul njéggal ci say bakar walil mu'minina wal mu'minat ak wéy gëm ñu góor ñi ñu jigéen ñi saar bi mujjee wàcc saar bi mujjee wàcc ne ko bu ndimbalu yàlla yegsee ndimbalum gi gën a kawe daa jaa an nasrullahi wal fathu ak ubbi gi gën a rëy war a ay tannaasa nga gis nit ñi yow sa mission mat na sëkk ndax ñoom ñëpp léegi yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan ñi ngi dugg ci diine buur yàlla gi ci dundin wi nga xam ne moom la borom bi teg ñu nekk ay mboolo mbooloo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru sabbalaal ci seede sant sa borom subhaanahu wa ta'aala mooy subhaana rabbil a'laa subhaana wa bihamdihi subhaana rabbil aziim wa bihamdi gis nga loolu rek

war na joxe benn aperçu ci wàll googu anam googu léegi ñu ñëw ci ñu bàyyi xel ne yenent yi alayhi salaam kon yenent ban bàkkaar lañ koy jéggal ne ah comme duñu bàkkaar xëy kon maanaam bàkkaaru jullit ñi la wax du loolu tamit parce que yéen borom subhaanahu wa ta'aala daf ni ko walil mu'miniina wal mu'minaat ak ñu góor way gëm ñu góor ñi ñu jigéen ñi ak way gëm ñu jigéen ñi kon du du du du bàkkaaru jullit ñi mbir mu ko concerné la wa kon lu mu doon boobaa ñaari gënd la ñoo gën a wér ci loolu incha allah bu njëkk bi mooy ne yeneen bi sallallahu xaal gi mu nekke jamono ji ni manam ni instant bi buñ ci tege ben seconde wala ben ciers rek limi sori gi limi yik digentem ak borom subhanahu wa ta'ala day kawé bari bari way bo xamné day gis né ndekété amna lu mu réré won ci kan moy yalla deug deug ak nan la ko warona jappé deug deug mbir yu mu réere ci gëdd gi mu waroon a jox borom subhaanahu wa taala dëgg dafa am lu ci wàññeeku woon wala lu melutoon ni mu mel tey noonu il y a une seconde ni mu mel nii waxuma laak nag il a un deux ans kon muy jéggalu ci loolu bu considérer ni mu mel loolu benn interprétation la bu possible mais beneen bi ci des mooy secret bi dafay nekk ci baatu maghfira ci boppam al ghufr al ghafr ghufran maghfira ak al ghafr ñett yooyu la ñuy wax ghafr moom moo tom tom tom tombeel ak ghafir ghafir dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqabi tawbi ghufran moo al alxafaar tur yàlla boobu ñu naan alxafaar bokk ci xufraan la dellu maxfira moo tel tombeek ak xafuur ñett yii nag duñ benn de ci njéggalu yàlla taxuñoo jóg ni waaye boo delloo ci maari ji am na benn xasida buñ tudd buñ bind bu tudd noonu tamit maari la tudd comme saar bi ñu tudd saar en fait bi sootul la آه، من قصيدة بوب ميتو دو معارج ومفاتيح الصعود في حضرة الجمع والوجود صلى الله عليه وسلم على بني كوي فيري بيكس سور تي غفار تي غفور يوي ليرال نانتي يو مل نون ليرال نان ديفيرانسي لان موم موي سوبتيليتي والو بوب فوالا تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانكو ديف مي ci turu yàlla yi maanaam buñ jëlee quatre-vingt-dix-neuf turu yàlla turu yàlla yi ak ak Allah ak huwa muy cent un maanaam yooyu yenent bi sallallahu alayhi wasallam benn bu ci nekk ci yooyu maanaam dajor turu yàlla bi lan lañ koy définir ak yenent bi sallallahu alayhi nan la ko incarné buñ ko doon firi tamit dañ ci daan boole ñun tamit nan lañ ci mën a ajee suñu xol ak nan lañ ko mën a jëfee nan nan lañ ko mën a incarné nan lañ ci mën a ajee suñu xol mën a incarné loolu moo nekk xasida boobu euh, léegi kon boroom subhaanahu wa taala googu muy wax c'est parce que baatu xafr mooy dafa am ñaari mbir mooy sutura ak aar ñaar yooyu lay boole moo tax mixfar mooy casque yi policiers yi di kii yi yi te mooy casque tamit ñuy dawal moto casque yu mixfar lañ koy tuddee ci arab maanaam mooy lan mooy dafa am ñaari rôle yu muy jouer mooy day suturaal bopp bi mooy benn ñaareelu rôle bi moom mooy day tere ba nit ki su mbëkkoo bopp bi du toj wala boog guñ ko dóoree bal wala jaasi wala yooyu du laal kaw du laal bopp bi muy ñaari njariñ léegi fu borom subhanahu wa ta'ala waxee ne day jéggale ay bakkaar ñaar yooyu ñoo ci boole ñoo ciy nekk mooy conséquences yi naroon a am mooy partiwu wu négatif bi maanaam aar gi càmm gi loolu daf koy jëf maanaam mooy conséquences yi naroon a am ci bakaar bi nga def conséquences yooyu la borom bi di écarté moom lay sori waaye mu am beneen njariñ gu ci nekk moom mooy sutural gi mu lay suturaal bakkaar bi ci boppam. ba day dess digënté yow ak sa borom kessé subhaanahu wa taala lool da dugg ci xaf maxfira gi ci njéggal ci xaf rek sauf que suturu googu dafa am ñaari xet dafa am as sutru anil uyubi ak as sitru fil uyubi as-sitru fil uyubi mooy suturaal gi ñu lay borom bi subhaanahu wa ta'aala suturaal ci sa biir ayib yi maanaam ayib yi ñu ngi fi yaa ngi def ay bàkkaar wala am nga ay ay ay défaut waaye borom subhaanahu wa ta'aala daf la ko suturaalal ba nit ñi teguñu ci bët yëguñu ko naane wuñ ko ndox waaye as-sitru anil uyub mooy sutura gi la yàlla lay defal ba tax lépp luy xeetu ayib dalay sori. moy muy la sutural da dafa le mur dafa la sang balanu sutura gu tolni ni ayib ci bopam da koy ñom ñolay sori moy as anil uyubi yenent bi nak sallallahu alayhi wasallam lolou possible ci mom bu nan ko dama lay jéggal say bakkar moy sori na la say bakkar ci anam go xamanteni possibilité nga def ko man tane muy ñaan yalla jéggal ko mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñukoy jangal ñun waye daf ci weesu loolu waye day gëna ñaan borom subhanahu wa ta'ala gën sori lepp lo loo xam ne wañé ko la borom bi diko gën di rang ay mbalani sutura ak ay mbalani leer kon halbo bu, bo so bo duggé foofu ci xaal bobu ngay né nekk nak ci sabbal yeneen sallallahu saa wasallam da lan sabbal borom subhanahu wa ta'ala ci jullem gogou mu nekkon ak borom bi wéetu ko ba adduna bi amagul moo tax nga gis ci jamono jooj nga xam ne yaa ngi sàbbal borom subhaanahu wa ta'aala di fii ci géeji leer yi sàbbalam yi ak cant gi turum yeeg meloom yi ak njëggalam gu kawe gi nga xam ne muy sommité bi nga sommité googu du dara ludul ak cant nga ni sami allahu liman hamida nga jóg ci te mais xool xam nga turu yàlla yi ak melo yi ñoom ñoo feeñ ci mbindeef yi moo tax géeju xaa boobu moo am benn tomb boo xam ne dafa intériorisé wu ci moom muy jiim te bastu jiim jiim jiim ak yaa ak mil mooy cinquante trois mooy Ahmad mooy réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wéeteeg boroomam muy nettaliwaat kon lii nga gis ne lu tax rakka di façon foofu bi mu intérioriser point boobu mu nekk Ahmad sallallahu alayhi wasallam bi mu feeñalee point bi point bi bi ko jëlee ci suuf yëkkati ko feeñal ko bi mu génn ko muy xaa xaa muy xaa muy xaa ul xalq muy muy mbindeef te te te xaa boo jëlee xaa maanaam muy xaa ak alif ak hamza nga am 602 xam ngeen 602 mooy lan mooy rasulullah loolu lay tolloo mooy yenent yàlla bi yenent bi sallallahu alayhi kon bi mu intérioriser tomb boobu digganteem ak boroomam kese li mu doon moom muy tomb mbëggeel googu ndax benn point kese la ndax mbëggeel gi benn rek la intérioriser ko mu nekk Ahmad boobu mook yàlla rek bi ko boroom subhaanahu bi mu bi na mee feeñal maanaam réalité bi muy xaabi moom moo am point bu muy intérioriser muy jiim bi waye mom tam muy ci point mbëggeel gogou mom la jël extérioriser ko bi nga xamné borom subhaanahu dafa bëgg bind bind fi moy al khalq mbindeef fi khaul xalq la bi mu ko bëggé inte extérioriser mu feeñal ko mu nek rasulullah nek haqqatul muhammadiyya moo tax bi muy jëfëndiko daf ne muhammadun rasulullah waxul ahmad rasulullah de muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa haqqatul muhammadiyya gi feeñ mu nekk cosaanu mbindeef yi yàlla yabal ko ci mbindeef yépp ci zahir ak ci baatin kom nag loolu mooy kon foofu la la fii ci boolem réalité yi moom yeneen bi sallallahu alayhi moo tax soo jug nag ci lool xaal boobu yani samia allahu liman hamd ah yàlla nangu na yàlla dégg na te ma ngay nangul képp ku ko sant na rabbana walakal hamda yow bur yalla bur dara dara yow rek lañ wara sant te cant yow dongo ko yello te ñi ngi lay delo cant ga nga santon sa bop dara dara ay xal la yu yenen bi saa dundon mom ak yalla kese ba dara amul legi nak ñun borom bi di ñu ko xéewale ñun ñun ñun ñun ñu war ko répéter quoi allahumma lakal hamd yalla ya ñi ngi lay sant ñi ngi lay sant bi nga jilé julli nga may ñu nga boole ñu ci ñi nga xamantene dañ koy def bi nga jëlé julli nga def ko sa jaamu yalla gi gëna sa jaam manam nit ñi gën ñi ngi lay sant ndax mënoon nañ ci baña bok waye ñi ngi lay sant ci ni nga défé ki nga def sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam batas ba tax tay lepp lo xamantene def na ci jot def na ko am te def na ni mel ci sa soppe bu mag bobu la sallallahu alayhi wasallam la jaaree ñi ngi lay sant yow mi nga xamante ne yow yaa amal adduna bi te bu la neexoon du am waaye nga ubbil ñu buntu yi am ak xam te xam-xam yépp mooy xam la yow boroom subhaanahu wa taala ngi lay sant ci lii lépp bi mu nekkee loo xamante ne ay leer la ak ak ay dëgg yoo xamante ne muy alxaqaayiq alxaqiya ak alxaqaayiq alxalqiya ay réalité yoo xamante ne day dellu ci yàlla mi dëgg ci xaa ak ay réalité yoo xamante ne day dellu ci xalq ci mbindeef ci xaa bi nga xam ne daa am tomb bi ci kaw muy xaa bi ngi lay sant bi nga jëlee lépp synthétiser ko cristalliser ko dissimuler ko confiner ko ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw na ba pare nga taxawal ko mu ñëw di ñu jàngal lii lépp ñi ngi lay sant ba nga defee yenent bi sallallahu alayhi mu nekk suñu cosaan te yow rek yaa ñu waaye ñi ngi lay sant ba yenent bi sallallahu ginnaaw ba mu nekkee suñu cosaan te yow rek yaa moom nga yebal ko ci ñun mu ñëw ba pare nekk min anfusikum comme ni nga ko ci suñu biir ñun bokk ci ñun te musul jóge ci ñun ndax wa'lamu anna fiikum rasulullahi xam leen ni yent yàlla bi mi ngi seen biir sallallahu alayhi nekkul ci suñu biti suñu biir la ne te mi ngeeg ñun te musu fi jóg sallallahu alayhi wa te du fi jóg ñi ngi lay sant bi nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dundu ci xaa boobu muy xaaul xayaati te bu ñuy julli réalisation boobu ci moo xam ci alxayaat ak alxayawaan muy xeetu ñaari dundin yi mën a am muy dundin gi nga xamante ne mooy bu simple bi ñëpp di xam waaye ak dund gi nga xamante ne moom mooy dund gu rëy bay am ci xoolu képp koo xamante ne yow yàlla yow yaa ci ne képp koo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa mi ngi ci xolam xoolam boobu day dund dund gu màgg gi ñi ngi lay sant ba nga jëlee loolu yépp nag nga dajale ko ci biir julli mu nekk jaamu yàlla boo xam ne ñi ngi lay sant ba nga ko defee mu nekk lu war ci ñun nekkul loo ñu tànnaloo rabbana walakal hamdu hamdan kasiran cant bu bari tayyiban bu tey mubaarakan fii boo xam ne barkeel rek la def te dañ ko dafa nekk barke da cee moo tax yàlla yow ahla sanaa'i wal majdi yow yaay ki yelloo ay bakka ki kañ yow yaay ki yelloo ay tagga ki yëkkati ak màggal a xaqu maa abdu lii wax nii muy dëgg waye haq ma qala al abd li gëna yey ci li jam di wax wa kulluna lak abd ñu ñep say jam la yow yàlla moy allahumma yow bur yàlla mi ci turu rafet yi melu yëkëti koy laa maani'a limaa a'tayta amul kenn ku mëna a xañ li ngay joxe ya ñu jox li lépp yàlla ñi ngi lay sant yow mi nga xamantene ya ñu may li lépp ya ñu defal li lépp ya ñu tek fi fep ya ñu melal ni népp yaa ñu xiir ci lii lépp yaa ñu jox suñu sañ-sañ yaa ñu jox ay kàttan yaa ñu jox ay xam-xam yaa ñu jox ay am-am yaa ñu jox ay man man yaa ñu jox xel ak xeltu yaa ñu jox li nga xam ne moom lañuy suuxantal yow yaa ñu jox suñu lépp ba pare may ñu jamono juñ koy defe ak bërëb yiñ koy defe yaa ko bind defal ñu ko ba pare wëlbatiku ne dag ñu ciy fay suñu defee li nga bëgg yàlla ñu ngi lay sant laa maani'a limaa a'tayta amul ku mën a xañ li nga joxe wala mu'tiya a mana'ta te amul kenn ku mën a joxe li nga xamante ne moom nga xañ wala yanfa'u zal jadd minkal jadd amul kenn kuy am gëdd mooy jadd am gëdd koo xamante ne boroom gëdd la boo xamante ne gëdd googu dana jariñ fa yow loolu amul gis nga baat yi kàddu yi nga xam ne moom moo nekk ci maanaa yi nga xam ne moom lañu wax nit ki bu yëkkati ko maanaam nga gis comme si que li mu dajale ci biiram limu mu dajale woon ci bi mu nekkee ci géeju xaa bi maanaam ci rukkoo bi loolu yëpp nag mi ngi koy intérioriser encore maanaam mi ngi koy euh, mi mi ngi ciy dellu si waat quoi mi ngi ciy dellu si waat quoi di ko dundaat xam ne dafa yëkkati ku ci rukoo boobu léegi nag ginnaaw loolu mu war a dem ci sujud bi ginnaaw bi nga xamante ne yëkkatiku na ci rukoo bi incha allahu taala eh, jotaay bii di ñëw dinañu eh, taxaw incha allah ci tamit sujud gi toog gi ak yeneen yi nga xamante ne ñoom aju waaye nga gis nit ki buy dem war dem rukoo yi war dem sujooti maanaam nga gis ne fekk na taxawaat na ba dalaat na ba teewluwaat borom subhaanahu wa taala yoraat forme bi nga xam ne mooy formu alif bi maanaam da ngay gisaale foofu benn mandarga lu tax alif bi ak xaa bi taqaloo wuñu naam alif du taqaloo ak keneen ci mbind ni waaye secret boobu géej googu dox ci diggante bi moom ngay ré moom dundaat mooy boo bindee alif bi ak xaa nga gis kon soo yëkkatikuwu balaa ngay dem ci mim bi nga xaaboo boo ci yëkkatikoo noonu taxawaat defaat alif mooy delluwaat ci sa cosaan xam ne yàlla boroom subhaanahu wa taala rekk fi nekk waaye du yow amul leneen amul keneen kon incha allahu taala eh, jotaay bi di ñëw dañ ko yeggale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 ذلك اليوم